asiru mal abraari hiina asiru sant leen gërëm leen mbokk yi di safoo di bàyyi xel leeral TV ak itam mbokk yi di safoo di déglu leeral FM tey nag fii ci diwaanu Touba premier numéro xibaar yi ñeel màggal gi atub 2023 dañu koy fas yéene tàmbale ak waajtaay li ku ne xam na ni gannaaw guddik tey gi benn ayu bés kott moo des ngir ñu daal di jublu ci bés bu mag bi muy safaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safaar di bés bi nga xamante ne bi moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul bàyyeekoo fii ci diwaanu Sénégal jëm ci diwaanu Gabon muy ab exil loolu nag waajtaay li mu ngi mel ni tuleeg malli jamono ji ci diwaanu Touba wante jamono ji mën nañu wax ni askan wi nga xamante ne bi rek ñoo bàyyeekoo fu ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ñëw ndànk-ndànk wante itam ñi nga xamante ne bi ñoo yore seen i dalluwaay di yaakaar gis ay gan ngir bu ko defee ñu mën leen a bernde comme ni ko sëñ bi diglee dañ ciy teewlu bi le ay bis kese des ñu yegg ci Magal Touba fii ci dëkk bu sell bi digganteem ak ndakaaru toll ci ñaari téeméeri kilomètre fii nag doon na ñaareelu dëkk bi gën a yaatu ci diwaanu Sénégal dembeek dikk bi nag amul benn gàllankoor fii nag ci diwaanu Touba njaboot yi yàkkamti nañu lool ngir dalal gan yi lépp rek ngir mën leen a bernde. Magal gu fi mas a ñëw gu ren gee koy dàq ndax bisu sëñ Mountakha yoonu sëñ Touba amul tànki kanam tànki amul tànk ginnaaw tànk kanam la te it murit moom fii ne lépp luñ defoon daaw fas yéene def lu ko raw moom wàccaay boo gisee nii dëkk bi rek xam nga ne luñ amoon luñ defoon daaw danañ def lu ko raw moom la murit yëpp fas yéene moom la ñuy ñaan nag sëñ Tuubaa gën ñu cee jàppale ba nuñ ko daan defee rek ñu defee ko nu ko raw te fas seen ko yéene incha allahu yéen nag ñoo ngi leen di sant bu baax ndax nii ngeen di def seen télé bi yàlla na ngeen dem ba mu doon ay tele tele ndax nii ngeen def bokk na ci li yokk màggal Cheikh Dieng ñu koy wax Pastef moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne dafay faral di xaar ay ganam bàyyeekoo ci bitim réew ren ji nag muy xaar ay nit yu bëree bari fas yéene jógee ca diwaanu Côte d'Ivoire. màggal moom ku ko def ku ne de benn leen wax ak it yaatal say gan ba tax ne kon ñun ñëpp takku nan euh, fas yéene bàyyi ko ci réew mi Côte d'Ivoire ci toll ci ñaari bis bis bu ne war naa ëpp ci di places ñu bàyyi ko fi nag nga jëm si euh, ci màggal gi ñooñee nag lépp. Euh, la ko waral mooy euh, fas yéene euh, dund bis bi fas yéene maggal màggal moo moo ñu jógee Côte indi ñu fii léegi nag premier bis bi ñëw na deuxième bis bi moom lañu war a xaar nii ci ma fekk nii ñuy war a xaar deuxième bis bi. ci jamono ji ñu toll ñëpp a ngi ci waajtaayu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bu màggal Touba Guilé ñu war ko amal ñeenti fan ci weeru sattumbar atub 2023 yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safaar. mu nga ko gannaaw gëstu boobu la def nañu itam ab gëstu beneen jagleel ko ak waa daayira muqaddimatul xidma ci jumaa ju mag ji nga xamante ne bi rek moo nekk fii ci diwaanu Touba ñoom nag am na liggéey bu am solo boo xamante ne bi dañu koy def jagleel ko taaral bi bire bërëbu jullikaay wante itam fépp fu askan wi mën a jóge ñu mën a ñëw jaamu yàlla ci ni mu gën a sellee ci bërëb bi lee Ibrahima Khalil jëme reportage mu nekk ab daayira bi nga xamante ne ràññeeku na lool ci service communauté mouride bu Touba Muxaddamatul Xidma nekk ab groupement taalibe yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllum seetal juma bu mag bu Touba Mbacké Serigne Thierno Bousso moom yi nga xamante ne bokk na ci daayira boobule daal di ñëwaat ci service bi nga xamante ne moom lañuy amal ci biir juma ji. fi mu nekk nii boo leen bis ba bis ba dellu si bis bu ne am na ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo koy nettoyé biir ak bit ci setal jumaa ji fii ànd ak ñoom ci altine bi wax dëgg yàlla ñoo gis nañ ne soxna yi daal liggéey bi nga xam ne ñoo ñoo ngi koy liggéey jumaa ji am nañ ci passeef farlu koy li nga xam ne noonu la ko lislaam bëgge ñu jàpp ni daayira boobule bañ ko créer fekk na sax ndem si yàlla di Serigne Saliou mu ngi ba tax na ñu ngi wéy di continuer di def ay service jëmale ko si jumaa joojulee loolu moom yàgg na jamonoy Serigne Saliou euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwri nii sax ku mel ni Serigne Afi mi nga xam ne mooy imam ci jumaa ji moom daan na gàddu bale di bale ci biir jumaa ji muy loo xam ne jamono xam sëñ moo ñu ko moo ñu ko digaloon depuis sëñ Saliou joxe ndigal léegi léegi nag façon nañ ci yéene nga xam ne dara dara du ci lii loolu ñun ñoo ko doon defal suñu bopp muy sëñ Afe ak euh, suñ mboolem kii nga xam ne ñoom ñoo ngànk daayira ñoom ñoo doon jël bale yi di bale seen bopp di nettoyer biir jumaa ji tey jii daayira Muxaddamatul Xidma mu nekk kuréel bi nga xamante ne bokk na ci mouvement yu gëna màgg te it ràññeeku lool ci gestion jumaa joojee foofe ci Tuuba Mbàkke waaye it am na yeneen kuréel yi nga xamante ne ñëw nañu dolleeku si ngir rek mën a jàppale kuréel boobu lee ñu fekk si tamit daayira Muxaddamatul Xidma ànd ak ndax daayira jumaa ji daf ci yaatal ñëpp ba ci am na ñoo xam ne sax sous région kii ci dépression yi sax muy Louga muy Thiès muy Dakar am na ñoo xam ne ci yeneen kii yi la ñu jóge pour ñëw di liggéey si ci biir jumaa ji gannaaw ay fan rek ngir ñu célébrer màggal bu Touba liggéey yi ñi amal ngir taaral jumaa ji ñu ngi ko fay amal bu baax a baax ci grande mosquée jërëjëf Ibrahima Khalil Jemme gannaaw loola itam wax ci wàccaay li ba tey ak waa service d'hygiène ñoom nag jël nañu ay matukaay daal di dajale lu tolloog téeméer ak fukk ci ay élément ngir bu ko defee rek ñu mën a désinfecté lépp loo xamante ni bi rek bërëb la bu askan wi war a dalloo ci diwaanu Touba Mbacké gile kii di capitaine Ismaïla Diop moom nag moo jiite boobu les service di fi ci diwaanu Touba ñu teewle kàddoom ci micro Djibril Khoulé. service d'hygiène vraiment mobilisé na 110 éléments donc 110 éléments ak 17 pick-up ak ñaari camion pour euh, transporter bagages yi ak ñaari bis pour le transport des troupes. bagages yooyu lan la. Euh, donc yi donc euh, c'est non matériel les appareils les produits donc c'est ça. justement produit yi nu mu toll. bon produit yi mi ngi ko mën a xayma bu fekkee ne désinfectant la ak désinsectisant désinsectisant du moins sax on a 40 litres on a amené 40 litres maintenant la mairie va nous appeler va va. mairie nañu ab épaulé si produit euh, lu toll 30 litres plus 200 euh, litres carburant. bon li ñu defagul euh, mooy traité nañu site religieuse yi site d'hébergement yi. jumaa ji 1245. jumaa ji. waaw jumaa ji traité nañ jumaa ji. voilà donc lépp loo xam ne site religieux la ak site d'hébergement daal traité nañ ko. maintenant des na mais li des daal ba après vraiment bëreetul. loolu tax ñu bëgg bu ñu paree ñu accompagner ko séance de saupoudrage parce que xam nga comme produit indi mënul matale euh, askan bi yëpp donc mais saupoudrage bi ñu ko defee dina mën a matale parce que si jaww ji lañ koy jaarale. te kenn umpaluwul euh, que ne euh, vraiment temps yi taw bi bëri na lool Touba donc ku ne taw on est vraiment yow ne ku ne yow aussi tamit ne vraiment feebar te yemul si yooyu rek parce que am na si li ñuy wax weñ donc yooyu la ñuy ooyee les vecteurs de maladie maintenant. Euh, taataay ndox yooyu moom mooy permettre yooyu ñu mën yoon nen am na yeneen parasites yu mën a euh, nekk loolu tax euh, muy feebar yu bëri yoo xam ne mën na ko génn comme paludisme fièvre jaune dengue donc filariose schistosomiase ak l'onchocercose Touba bërëb la boo xamante ne bii dañ fiy jaamoo yàlla wante itam dañ fi màggalee bés bi nga xamante ne bi rek moo di 18 safar 18 safar na ko ko wax xel dem ci bés bi nga xamante ne bi ci la xaadimul rasul dal di euh, def ab exil jógee fii ci diwaanu Sénégal jëm ca diwaanu Gabon bi mu dellu see nag ci la sàkku ñi nga xamante ne bi rek ñoo di jullit ñi ak képp kuy doomu adama nga daal di koy jàppale daal di koy santale suñu borom ci li nga xamante ne bi teg na ko ko ki nga xamante ne bi rek bokk na ci daayira euh, muxaddimatul xitma di euh, Serigne Thierno Bousso joxee na ci ay leeral wante itam li nga xamante ne bi rek moo soxal naka la ñuy màggalee fii ci diwaanu Touba. Euh, bis bi sëñ Touba demee bis boobu la wax woote woon ne képp kuy bi mu ci la wax ne nañ ma sant la ci bi waxtu bi dese waaye bis bi mu demee la woon. bis bi nga xam ne ci la tubaab bi yóbbu woon muy 18 safar bi bis boobu moom la moom lay moom la moom la ñuy euh, woote waaye woote gi nag nekkul ne nu la neex rek nga koy defee ndax li mu woote lislaam la. kon niñ fi war a jëfandikoo warul génn lislaam nit ki buy ñëw war naa waajal boppam ci lépp loo xam ne lu ko lislaam tere moom moytu ko waaye li nga xam ne lislaam digal na ko tamit moom mu lépp war ma yi nag biir dëkk bi ba ci biir jumaa ji mooy képp kuy ñëw dafa am tere yoo xam ne fekk nañ mu xadimaatu xadima tere ko waaye même bu dul tere yi nit ki nekk ki nga xam ne yaakaar na ko dem dem ci moom war naa am melukaan woo xam ne melukaan wu sell lay doon ndax kuy sàkk lu baax moom jàpp naa ne war nga waajal sa bopp waajal woo xam ne boo àggee dara duñ la ko lii waaye jóge fenn ñëw ba ci jumaa ji ñu ne la nii nga mel waroo mën a dugg ci jumaa ji wala waroo ma a li loolu nit ku nekk nekk war na ko dawale boppam kon tamit ñu bàyyi ko xel bu baax baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw daal na nga xam ne sëriñ bi dañ koo war a jox ma dañ koo war a waajal ñëw gi eh, eh, bernde yi ci la bokk njàngum alxuraan mi ci la bokk waaye tamit nga waajal sa jëm ba mën a jax jaxasoo ñëpp ba boo ñëwee jumaa ji tamit da nga mën a def li la war kenn du la wax ne la jubbantigul wala defal nii ndax ñi fi nekk moom dañuy jubbanti nit ñi rek waaye nekkuñ ñoo xam ne ñuy gàllankoor kenn sa liggéey des ba tey ci diwaanu Touba Mbacké wante itam ci wàllu euh, politique la ñuy àddu ak Doudou Sidibé moom nag dafa samp ndëndëm ngir bokk ci jongante jiitum réew yi ñu war a amal atub 2024 dafa ñëwoon doxante si seet si ki nga xamante ni bi moo di xalif général des jot na ci itam yëkkati ay kàddu ne dina fexe def lépp lu mën ngir bu ko defee yor Sénégal yoreen bu mucc ayib dañu koy teewlu moom Doudou Sidibé ci micro ki nga xamante ne bii moom moo di euh, Jibril Xulle suñu naataango bi ñu nekkal fii ci diwaanu Touba. seet si euh, Serigne bi Serigne Mountakha xalif général des Mourides euh, ñëw tàggu si ko ñëw tamit siyaare si tamit sàkku ñaan ci li waaye tamit. wax ko mu ñaanal Sénégal yëpp euh, jàmm am ci réew mi ndax bu jàmm amul euh, lii ñu jublu nii euh, duñ ko mën a def parce que élection dafa war a ànd ak jàmm réew de toute façon sax en général dafa war a ànd ak jàmm donc ñaan jàmm waaye tamit ñaanal mu ñaanal ma ci sama candidature bi ba nga xam ne dinaa mën a egg foofu nga xam ne fa jëm muy présidence de la République Ah, lu ñuy indi nag lu bees mooy ah, man maa ngi jàngale fële ci université yi nekk euh, France ah, jóge ci diaspora bi yaakaar ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi tamit dañu war a ñëw fii ci Sénégal indi seen xam-xam indi seen doole contribuer pour le développement du Sénégal tey dëkk bi ku ko gis nii di nga xam ne pratiquement fépp metti te benn doomu Sénégal waru ci des ginnaaw Euh, te ñun nag fi ñu bëgg a gën a maanaam euh, sukkandiku mooy ci wàllu emploi ak wàllu njàng mi ak formation loolu lu am solo la parce que bu may def ay tournée di waxtaan ak euh, ndaw yi damay sentir que ne ñoom emploi soxal na leen bu baax a baax a baax d'ailleurs loolu moo sabab sax ñuy jël gaal yi di dem di risquer seen seen vie te comme ni ma ko tàmm di waxee population Sénégal dafa yokk nekk nañu léegi ci 18 millions waaye noonu mu yokkee de façon exponentielle euh, ressources yi aussi yokkeewuñu noonu bu ko defee day am tension voilà te bëgg-bëggu euh, sénégale yi dafa xaw a yokk li wax les besoins incompressibles dañu yokk euh, moo tax dañu war a góorlu fexe tamit ba ressources yi méngoog population bi bu ko defee ku ci nekk da nga ciy gis sa bopp. gannaaw loolee mbokki yi dañu daal di def ab taxaw seetlu wante itam. nataal jagleel ko ki nga xamante ni bi rek nitu yàlla la woon muy Serigne Fallou Mbacké moom nag nekkoon na xalif général des Mourides ci jamono ya nga xamante ne bi moom la nekkoon fii ci àddina ki nga xamante ni bi rek moo di Ibrahima Khalil jamee mu ngi ñuy dikkalaat ci kan mooy Serigne lu Mbacké gannaaw ba nga xamante ne bi da doon àdduna ak léegi cheikh Fallou Mbacke ñu gën koo xam ci turu cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke moom moo nekk ñaareelu doom ci waajuram bu góor cheikh Ahmadou Bamba waajuram bu jigéen nekk Awa Bousso moom nag mu ngi jóge ci famille bi nga xamante ne daanaka ràññeeku na bu baax a baax ci ay nit njiit yu am daraja yi nga xamante ne tàbb nañu leen ñu nekk ay imam fii ci Touba Mbacké moom Cheikh Fallou mu ngi gane si àdduna ñaar fukki fan ak juróomi ñaar ci weeru soin atum 1888 fale ca Daaru Salaam mu ngi amal am njàngam alquran ci wetu Sëriñ Ndaam Abdourahman loo nga xamante ne sax foofu la mokkale alquranu waaye nag di wéyalaat ay njàngam ci wàllum théologie ci wetu Mamor Jaara Mbacké Sëriñ Fallou di jeexal it ay jàngam ci ci wàllu séance religieux moom ak rakam bu góor kii di cheikh mouhamadul moustapha mbake ñoom ñëpp daal di amal seeni njàng ci wetu seeni baay foofe Mauritanie Serigne Fallou amal tukkiyam bu njëkk ci makkatal mukarama ci atum mu nekk xalif général des mourides ci fukki fan ak ñett ci weeru sulet ci atum 1945 gannaaw ba magam bu góor cheikh moustapha mbàkke daldi génne àdduna naka noone sëriñ fàllu di woyal ay liggéey yi nga xamante ne sumb nañu ko woon ci wàllum construction bu jumaa bu màgg fi ci tuuba mbàkke mi nga xamante ne sax mu ngi koy dalloo ci juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 1963 nekk ki nga xamante ne jege na lool njiitu réew Sénégal ba woon di Léopold Sédar Senghor Cheikh Fallou Mbacké daldi dëddu àdduna ci juróom-benn fan ci weeru août atum 1968 fii ci Touba ki ko wuutu ci bopp bi rakkam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Magal Kazu Rajab nekk événement bi nga xamante ne tombé ci anniversaire ba tax na ay junni junni doomu aadama di ko fekkee at bu jot mu ngi noonu kon muy euh, nit ku am diine koo xamante ne bi rek daanaka Ibrahima Khalil Diémé defal nañu ab nataalam moom nag déglu ngeen li nga xamante ne bi moom lañ leen nettali ci jaar-jaaram ak itam ci dundam rawatina ci li mu def ci wàlluk diine islaam ak ci diwaanu Sénégal mbokk kon foofee la ñu yemale premier numéro bu seen xibaar ñeel wàllu ko màggal atub 2023 di jaajëfal Ibrahima Khalil Diémé ak itam Jibril Khoule mi nekkoon ci montage beeg caméra bi dig daje ëllëg lay doon ci waxtu wi lay ci xibaar yi ñeel wàllug màggal gi atub 2023 asiru ma